Tay dem doon inaugurer ben euh, maternité bo xamni dangot Dangote ñu ko jox ci cadre RCE muy lo xamni lu am solo la parce que ci centre de santé bi yalla dafa def euh amaguñu won ben maternité bo xamni vraiment mën na noo wax ni maternité la li fi nekkoon moy maternité la c'est vrai dafa àndoon ak yenen salle d'hospitalisation gor ñi jigéen ñi di ci bok di ci nekk tay nak ñu tabaxal ñu maternité bo xamni vraiment jàpp nañ ni pour jigéen ni rek la pour ñi nga xam ni yàlla dafa def ñuy def accouchement donc loolu kontaan nañ si bu baax di si gërëm Dangote te lii ma wax dama koy wax si turu conseil municipal Pout di wax si turu district sanitaire Pout yëpp parce que district bi Kër Moussa Kayar ak Jandeer yëpp si la ñu bokk te defe naa ni maternité bi ñoo ñëpp ñoo koy jëfandikoo donc defe naa ni tey li nu def ñoom am solo trop ñuy wax ni dangot dal ñi ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla lii continuer seen société bi jëm kanam ba li nga xam ni tey mooy li nga xam ni population yi xaar nañ ko si ñoom ñu mën a def yeneen jéego yoo xam ne ñu ngi ñu ngi koy yaakaar si ñoom. ñun collectivité territoriale yi suñu doolee barewul budget yi dafay tuuti tuuti boo xam ne li ñu war a def si investissement du doy donc société yu mel nii rek ñooñu war ni mën a jàppale pour que li nga xam ni bëgg nañ ko muy ay école ay dispensaire ay centre de santé yi ñu amélioré ko. ak yeneen yoo xam ni population yi dañ koy soxla pour que ñoom ñu jàppale ñu si wax nañ leen ko nag si biir wax ji nee ñu leen dañu accélérer euh, vraiment rythme bi parce que gis nañ ni am na solo baax na lool waaye nag bu nu sañoon day doon at mu ne waaye da at yi day xaw a duggante benn at ba dugg ñetteelu at bi sax leneen soog a am mais xëy na loolu li ñuy soog a commencé rek la mais loolu loonu leen ñaan ñoom ñu accélérer ko pour que année bu ne au moins chaque commune mën a am benn infrastructure bu dëgër

ci pour société d'Angoté. tey ñi ngi doon inauguré maternité du Pout bu ñu leen tabaxal démb ñi ngi woon Fulum doon inauguré centre de santé bi banki démb ñi ngi woon Diass doon leen jox deux tables de banc actuellement ñi ngi leen di tabaxal ay salle de classe yoo xam ne sotteegul ba léegi mais incha allah léegi mu pare te loolu yëpp ci cadre RSE la RSE e bi en fait cadre de concertation bu ñu pour waxtaan ak commune yi seen priorité ñu ak ku nekk dafa am sa priorité priorité ci ñaari volet ëmb éducation ak santé yu ñu nekk di di di di soit si éducation la santé mais loolu commune ci bopam Nous seen bop ñu ci ak suñu propre moyen te premier pas bi rek lañ def te incha allah bu neexee yàlla ñu ngi waxtaan si yeneen investissement yoo xam war nañ leen seen gunge commune yi déjà am na yoo xamante ne jox nañu ko ñu ngi koy xool pour xool kañ la ñu mën a tàmbali liggéey bi. jox nañu euh, pour commune de Pout jox nañ leen mille cahiers. Euh, Diass tamit jox nañ leen 3000 cahiers Fulum Morolan jox nañ leen tam 5000 cahiers.